voilà concert donc c'est normal conférence bi donc ni ko organisé mooy Raxu Pro Raxu Anta Raxu donc ñoo ñoo ma choisir pour ma ñëw def pour participer donc loolu moom loolu moom indi comme ñu mu indee ñoom Tufaan ñoom Dib Jessica Nidof. ok. Euh, d'accord keroog maa ngi doon seetaan sa ne di nga wane Toofan que doo doo morom. waaw waaw maa ko de wax dëgg maa ko wax et je l'assume. nga ne temps yaa xew si jamono. ah bon. ah ah ah. alhamdulilah yàlla xew. victoire. waa kii Ndeye Gueye Junior la de. waaw man la. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm waa naka mu. maa ngi nii rek léegi dañoo bëggoon a xam lan moo waraloon tey sa teewaay ci concert Toufane. xam nga fi mu ne Sénégal dañuy xewal te ñag yi lañu xew waaye ñun Sénégal dañuy génne suñu culture te bu ñu yéegee léegi nga xam ne léppay dëgg. danaa ku ñuy bañ bañ ñu ndànk ndax boo koy bëgg boo ñu bëgg doo ko tay déggal ma loolu yow rek ci xale joŋee. nee naa la l'enfant chéri de grand élément Serigne bu ma yéegee léegi nga xam ne lépp gonga la boo yéegee ñoo xam ne lépp dëgg la sama mag ju jigéen ji bu ñu yéegee nga xam ne lu waay di tari da koo koy kan numbe njaay jaata njaay nee naa sa dul mbay la kon oh looloo foor dañu daagu léegi ci kaw seen bi xool nu muy demee kii numbe la yaa eh kii maam numbe la yaa waaw maam numbe ci la nekk maa ngi nii rek di a ku la xam ne xale rek ci jonga ba da nga jonga ba gannaaw maa ngi ni <laughs> waa tey maam nu méttee dañoo gisoon sa teewaay tey ci concert Fann bi ñu bëggoon a xam tey ji lan moo waraloon sa teewaay. waaw sama teewaay nag xam nga euh, Papa Keba mi nga xamante ne moo ñu yor moo fi nekk xam nga te xam nga ni ñun nag Sénégal dañoo polyvalent ñun lépp la ñuy fecc. gis nañ loolu damay ragal su yéegee sax dañuy fëx normal yaa ma gën a xam. gis nañ loolu tey daal loolu lañ doon def xam nga pour daal di yéeg fii rek toroxal seytaane def nañ daan def parce que loolu suñuy suñuy suñuy façon la daal suñuy yëf. ñun xam nga fu ñu dugg rek day neex day neex ba dugg peex. waaw loolu moom dëgg na li ngay fecc amul. non loolu dafa leer xale yépp dañoo signé. dëgg la nu ah, ma waroon benn xale. Salut, c'est Toufane. Retrouvez-nous sur télésénégal.com. Fenty, Eledi